ay ayu bés dox suñu digganteeg tabaski bi jamono ji ñu daan nemmeeku mbooloo mu bari ci palaasu tailleur yi waaye ren ji am na ak wute bu baax buñ sukkandikoo ci suñu mbokku tailleur yi li ko waral di mbas mi dugg ci réew mi di Covid 19 waaye tailleur yi ñu ngi ñuy xamal ne donte demeewul ni mu daan demee waaye lu mën a xew tabaski bi moo tax ne foofu ci ñoom korite gi ñu weesu. waaw jamono ji moom ni ñu koy dundee mooy comme ni ñu ko daan dundee rek waaw ndax moom daanaka du sensé moom nii rek lañ waaw client yi nag moom ñu ngi ñëw ndànk-ndànk waaw. waaw ren ren moom am nañ si yaakaar nag moom ndax ñu ngi tàmbali ñëw bu baax a baax mm-hmm. am nañ yaakaar ne moom dina dina sant dina wuuteeg korite bi mm-hmm. waaw. xam nga pandémie bi moom la daanaka lépp lu ñëw tamit dañ koy delloo ci suñu borom rek nañ ñaan ko bokk sant yàlla rek alhamdulilah comme comme mën nañoo toog ba di ko nettali la alhamdulilah ndax bu ñu dalal wala mu dal suñu njaboot moom ci lay gën a méttee waaye nag alhamdulilah. waaw moo tane baax korite moom tanewul daa gën ndax nit moom lépp loo mën a am moom ñaanal yàlla rek jariñoo ko muy lu néew muy lu bari Korite gi ñëw na ci jàmm jàll na ci jàmm toog nañu mën koo nettali ñi ngi xaar Tabaski ñëw yaa ngi ñëw nànk-nànk liñ ciy am muy ñaar muy doon rek na ko nit ki jariñoo rek te lu na jafe lool sax laaloon nañu lool war a da ngay am ndax moom temps yi moom affaire bi dara dara doxu si bu baax ba alhamdulilah xam nga pandémie bi moom bi suñu la daanaka lépp lu ñëw tamit dañ koy delloo ci suñu borom rek nañ ñaan yàlla bokk ci ñi koy nettali sant yàlla rek alhamdulilah comme comme mën nañoo toog ba di ko nettali la alhamdulilah ndax bu ñu dalal wala mu dal suñu njaboot moom ci lay gën a méttee waaye nag alhamdulilah tabaski bi moom wax dëgg fa yàlla daanaka ñu ngi ciy sant yàlla bu baax rek waaw daanaka nag moom nekk lu fi lu suñuy client te suñu borom def na ne jeune talent yi nga xamante ni xëy na bi ñoom ñoo bëgg lu baax rek xëy na muy mag ñi muy ndaw ñi muy góor ñi muy jigéen ñi suñu yaay yi suñu yaay yi ñëpp daanaka xëy na ñoom rek ñoom lañ fi nekkal waaw ren jii ni jamono ji demee ñu doon yaakaar ne yokkute dina am ci wàllu njëg gi waaye ñoom tailleur yi ñu ngi ñuy xamal ne amuñu si benn yokkute ndax xam nañ ni dëkk bi demee. non non moom wax dëgg fa yàlla moom daanaka an koy xewal ndax jamono ji xëy na ku nekk xam na ne xaalis amul waaw te moo laal ñu bari ndax daanaka jàppalante la rek wax dëgg yàlla. ñu moom xamuñ yi moom suñuy client lañ yàgg nañ waaw doon ñoo xam si ne moom ay gan lañ si ñun buñ ñëwee dañ leen daan defal dañ leen daan defal rek loolu moom des ndax lépp moom ci loxo yàlla la Hmm. non retard moom da si am incha allahu rabbi du si am waaw na client yi daal di def di teel indi ñaw yi hmm. waaw loolu moom da si baax dañuy jàppale baax a baax. moom parce comprendre ñun ci situation yi. waaw ndax nit moom bu ñu daan ñëwee daanaka bu nit ki fayee mu fay 3000 francs danañ comprendre ndax situation voilà ndax dëgg-dëgg moom dafa metti tamit aussi te nit ki tamit li ngay liggéey ci nga mën a baax waaw maam bul dabu rek a dabu ak ku koy def ak ku mu mënti doon nañ comprendre situation bu nit ki ñëwee ñaw loola muy sa client ah mu la daan fay 10 000 francs nga yow mooy la 8 000 francs comprendre li passé xëy na yorul wala bëgg na waaye amul wala nga ma sàngam parce que bis dafay ñëw te lii ñëw li suñu kanam moom daanaka moo dàq lépp man ñaan yàlla nettali ko rek moo gën ñun de dafa def ne soo amee indil soo amul indil ndax ñun moom problème mu xaalis wax dëgg fa yàlla amuñu ko waaw mën nañ laa ñëwal ba mu ba saa yoo amee fay amuñu problème boobu ndax daanaka àllu àdduna boolewuñoo kenn waaw lu rafet moo gën lu ne waaw tabaski di bis bu màgg ci jullit yi tax su jegesee ku nekk di bëgg am yëre yu yees ba looloy waral atelier tailleur yi di fees dell